mënoon naa ñàkk ndax li imam ustaz di wax nii mënoon na doy loolu rek loolu rek doyoon na xam naa sa xeet rek moo tax nga waguñu sant ay kàddu ci leerlu xadar cosaan li waaw cosaan li moom moom cosaanoo ci suñu wéyjur sëriñ Mamadou Seck naaw bi mu ko yàlla gis fa boobu dëgg yàlla ko joxe dafa jël nga xam ne moom ma ci kanam liggéey bi wax dëgg yàlla tuwaat yàlla lool ci liggéey ba njabootam yëpp itam ci ndax ba ci njabootam d'accord woon itam du ko def waaye njabootam ngeen nangul ko loolu ah ginnaaw yàlla ba nga xam ne bëgg na fi dal njabootam wëlbatiku waat nii comme que mbir mi fii la jóge woon bi dañ koy delloowaat fa mu jóge woon delloo ko ba ca ndaala moo waral léegi léegi tokkadar gi nii Moustapha Seck mooy jëwriñ waaye ki nga xam mooy jëwriñ dëkk bi sëñ Ousmane ñi nga lañu ko jox waaye léegi la tokkadar gi nag dañu ko delloosi ci cekkeen moo tax bi ñu xëyee ñëw nañ cekkeen ñoom ñëpp ah wàcc kaamil doxal fa la ñu war a doxal lépp sëñ Ousmane teew fa mbooloo mu bari teew fa ñu waxtaan fa tubaarika la na ñaanalante fa ah tubaarikàlla lépp rafet na ànd bi nga xam ne itam moom la ñu ànd tey ci ci la doxal ak murid yi lii mus fi am ànd bu mel mus fi am yàlla na sax yàlla na yàgg kontaan ñu ñëpp tubaarikàlla ñëpp kontaan na ci lii moom ñëpp rafetlu na ko